ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. jaa ngeen jëf fidèle téléspectateur Equivox TV yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen dalal jàmm kenn ku nekk ci yéen nga nekk ci biir Sénégal mbaa ci bitim réew ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax a baax fii ci journal de l'arène ma ci ànd toujours ak sama góor sama càmmiñ sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la bu baax. <laughs> maa ngi lay fay. ziar naa la ci weeru koor gi. ngi lay delloo ziar ci weeru koor bi mhm. loo xam ne namoon naa tamit. maa la raw Babacar j'espère que koor gi sonalu la. waaw non non xam nga ah waaw xam nga koor moom. Mm. maanaam mënu ko bañ rek parce que lu tax mooy. Mm-hmm. xiif ak mar mooy baasu koor. Mm-hmm. ab li ci doog li ci des nag doog a ñëw. Mm-hmm. ci farata yeeg sunna yeeg yooyu. mais yooyu nag defe naa ne boo koy def tamit te muy jaamu suñu borom. yaakaar naa ne. mbégte la war a doon ak cant rek. macha allah tax ba même buñ buñ li ñuy jàppee coono ñu duñ ko jàppee coono. macha allah sant rek laa lay jàppee quoi. <laughs> alhamdulilah kon ñu dem euh, seetaani suñu euh, revue des titres ñëwaat fii ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 20 avril 2021 dañuy ok yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy dooreeti ko yëglikaay bi di suñu lamb fa mu xëy ñëwati fenn la ci xëtam mu njëkk maanaam tey xaadim nga jëgal xëy fësal président Rock Énergie ak ka nga xam ne nii moom moo tëgg mbër ma nekk ci Rock Énergie di Modou Lo muy Luc Nicolaï mel ni ki nag Khadim Gadiaga moom tey Luc la xëy daal di ko dànkaafu di ko xamal ne boo yeboo nag nga jël sa ay matukaay yow Luc Nicolaï ndax nag duma la topp joo gis fa ngeen jëm daa soriwul te yow fi ñu bëgg a dem ak yow mu ngi bëgg a sori ndax nag faw nga léttunu wala nga firunu te jàppal ne diggante Modou ak amaa moom loo ci mën a dig Khadim ne ko ren moom day am moo xam yaa koy tëgg wala doo ko tëgg waaye loo ci mën a dégg daal combat boobu moom loo ci mën a dégg moom pare na nañu ngir mu am bu fekkente ne nag yow da ngaa parewul yow ni nga ko la laaj xaarim nga jeg mooy wax de ne na ko lig bu dee pare woo seetal yeneen bun wala nga yeneen mbir yoon yoo xam ne nii ñun danañ ko seet pour ñu mën a bëre waaye combat boobu moom faw espérer ko kon daal xaadim nga jege moom xëy na tey di dànkaafu ki nga xam ne nii moom moo di lig Nicolay mel ni ki ba tey combat boobu daal yëg li kay bi di suñu lamb tey mu nga cay ñëw daal dina xam ne daal loo ci mën a dégg ak jaaxle mu nga topp combat ba tey de maanaam combat boo xam ne daal fi mu nekk nii la coow lay bare bare bare bare defuñu ko ko ab dat kenn kalewu ko dat bu leer moo tax fi mu nekk nii daal loo ci mën a dégg moom ama ak muuru daal fi mu nekk nii ak jaaxle daa mel ni moom dugg na ca keneen koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg moom daa mel ni moom fa mu tegu baax na de wala ay mbiram daal fi mu nekk ni moom leer na naññ bu dee mbiri nig li ko laay daal lëndëm itam moom ay mbiram leer na muy Gaston Mbengue di biir beneen promoteur bu mag boo xam ne mu ngi ci làmb moom nag ren yëglikaay bi ne daal la donkin da la ren daal soo bëggee dégg-dëgg ñëwaat na de jël pouvoir ba toog ca kaw nag di contrôler làmb ja sunu làmb ko wax du sama ay wax ndax yëglikaay bi naan boo xoolee juróomi affiche yu mag yoo xam ne yépp mu ngi ci loxoy Gaston mel ni que daal fi mu nekk nii moom yëglikaay bi jàpp na ne daal donkinu làmb ja ñëwaat na te ba mu dikkee nag dafa ñëw ñëw bu fort daal di tegaat mbir loxoom yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey dina wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne ni moom que mu bëgg lijjanti ba tax mu teel ko ko wax moom moo di rëg-rëg ko bëgg a lijjanti du kenn ku dul guy gi nee na daal ci une minute laa ko fas yéene lijjanti moom rëg rek guy gi moo xëy tey wax loolu nee bu arbitre bi génnee suñu diggante bu soufflé kay wàcc may dox ci kawam bu nu continuer ba tey sunu làmb daal mu nga nu xëy xamal nag ab laaj la xëy samp Lac de Guiers laaj ku koy arrêté ginnaaw ba mu lijjante ki nga xam ne nii moo di Tapha Guèye daan ko ñu ne déet ne waaye mu teg ca Papa Sow ña amati ndam ca kaw Eumeu Sène moo tax yëglekaay bi nag di laaj kan mooy arrêté Lac maanaam Gris Bordeaux kon xanaa kon xëy na mu man koo arrêté moo tax yëglikaay bi nag ñëw na ci ñoom ñaar ñu nga xam ne nii daal ñoom ñooy ñaari mbër yooyu muy Gris ak lakk ci biir yëglikaay bi daal sunu làmb ñëw na ci seeni palmarès nee na bu bëggee dégg-dëgg ci ay victoire ki nga xam ne nii moom moo di um, Gris Bordeaux wala Lac boog ci woppam moom Lac de Guiers 2 mu ngi ci 14 victoire 2 nul 2 défaite ak benn sans verdict bu dee Gris Bordeaux moom 11 la am ak 9 défaite ak. ñaari combat yoo xam ne daal ay sans verdict la sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu écrit ba nga xam ne nag ca la nekk moom Gris Bordeaux di faas yëgli kabi ne daal bu bëggee dégg dëgg écrit ba moom lañ doon mébét di ko lijjanti muñ na sotti muy faas ndakaaru écrit ndakaaru écrit faas moom léegi boole nañ leen mel ni ki nag kon daal fi mu nekk nii yëglikaay bi xëy na woon tey Abbas Ndoy ak nga xam ne moom moo di Amadou Kati Diop ni kon daal bureau ba nag taxaw na leeral nañ ko nañ fi mu nekk nii ci bi nga xam ne nii daal moom moo di sunu làmb président d'honneur ba moom Mbaye Guèye la ñu jël def ko ko waaye président ba nga xam ne nag moo jiite Fass Ndakaaru du kenn ku dul Abbas Ndoy premier premier vice président ba nga xam ne nii moom moo di Mame Biram Kebe la jàppal yëglikaay bi ne deuxième vice président Thierno Dramé la jàppal ba tey ka nga xam ne nii moom moo di Youssouf Lakum tamit Youssouf Lakum daal moom mooy troisième vice président ba directeur technique ku écrit boobu tamit du kenn ku dul ka nga xam ne moom moo di Abdou Guèye di magi Tafa Guèye yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko entraîneur principal ba nag du kenn ku dul Amadou Kati moom daal moo fas yéene di tàggat ña nga xam ne ñoom ñoo di mbër ya ci wàllu manager moom jàppal ka nga xam ne nii moom moo di xalifa ja moom moo di manager ba kan fa teg nag toftal ko ci kawam moom moo di Ibra Mbaye yëglikaay bi daal loolu la ñu xëy tey toppal ñu ko ci la nga xam ne nii moom moo di écrit bi nga xam ne nii moom moo di Fass Ndakaaru defaraat ko muy écrit boo xam ne daal écrit bu bees la yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu ko am na ñeneen ñoo xam ne tamit defaraat nañu bureau muy làmbi Jurbel GRC ba daal jàppal mbay jaw daal la ñu reconduiraat mel ni ki nag bureau ba nag moom am na ay laalaat yu bare yoo xam ne ni defaat nañ ko waaye loo ci mën a dégg daal moom mbay jaw daal loo ci mënti dégg daal moom lañu ñu nag fas yéenee daal wala boog moom la ñu tegaat fa nga xam ne ni moom moo di ca bopp la nga xam ne ni moom mooy CRC bu Diourbel bu nu fa jógee record la ñuy dem record lañ fa fekk mooy ñaari xale yoo xam ne daal soo bëggee dégg-dégg daal mooy ay xale yoo xam ne loo ay man a wax mooy seeni mbir moom fi mu nekk nii mu ngay dox muy Ama Balde ak nga xam ne moom moo di Boy Niang yëglikaay bi record moo jàpp ne bu dee Boy Niang mu ngi ci ñaari contrat Ama Baldé ñu dit ne waay moom combat royal lay jongante léegi yëglikaay bi nag nen li leen ko yóbbee dul lenn dul seen ab liggéey ak seen ab taxawaay bokk na ci seeni i seeni capacité ci mobiliser maanaam dajale mbooloo ay mbër lañ yoo xam ne bu buñ jógee mboolooy topp ci seen ginnaaw wala boog sax bu la neexee nga ne Pikine gépp moo tax daal ñu nekk ñaar ñoo xam ne nii maanaam ñuy am façon combat yi nga xam ne moom la ñu am moo xam Boy Niang la moo Balla Gaye moo xam Ama la moo nga xam ne nii moom moo di Modou li simple tamit yëglekaay bi di record fa la tëje tey mel ni ki nag ñaari oto yoo xam ne daal teg nañ ko la 15 mai fa nga xam ne nii moom moo di gàggi sërif gis yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dina ko wax waaye fa nga xam ne nii di am moo di def Equivox TV moom Bécaye mbay moo fa ne la mu xëy xam le nag na mu xamal daal waa lambi frappe de ne na soo bëggee dégg dëgg daal li simple ak li avec frappe du ñu benn ndax ne na ña koy seetaan du ñu benn ndax daa jàpp ne li simple ña koy seetaan moom ay nit lañ yoo xam ne yaru nañu te itam bëgg nañu la ñuy def bëgg seen cosaan moo tax des fois doo fa gis ab police doo fa gis ab gendarme te ay kilifa la ñuy doon ci àll ba la ñuy jóge ñoom li leen ñor mooy maanaam liggéey weekend jot ñu dem defi seen loisir seetaani làmb waaye nee na bu dee ay yàqu-yàqu la wala def lu la neex réewande bekkaay nee na boo koy seet da ngay dem ca làmb ja nga xam ne nii mooy lay làmb frappe ji waaye li simple moom bekkaay jàpp na ne daal loo ci mën a dégg loola amu fa ka nga xam ne tamit bekkaay dànkaafu na ko ca Equivox TV moom moo di Tyson 2 nee na ko loola waaye mën a wax loo liggéey du doy ndax ki nga ko séqal muy Franc fi mu nekk nii ci liggéey bu méttee métti la ne ndax chaque weekend mu ngi ca tournoi di gagné di bëre kon moo lépp ay compétition kon soo bëggee dégg dëgg moom booye boo yow tey sant nga teel a jël say matukaay Bécaye Mbaye nag moo wax loolu tey ci Equivox TV du sama ay wax voilà de retour fii ci suñu plateau journal de l'arène ma di leen ko xamal rek saa su ne dama ciy ànd ak sama xarit Babacar Babacar tey nag dañ koy tijjee ak euh, suñu làmb comme niñ koy faral di defee. suñu làmb tey nag xëy euh, ñëw ci ki nga xamante ni mooy xaadim euh, gajaga ak Luc Nicolaï moom mii di Khadim gajaga nag mu daal di xamale ci suñu làmb ne kii di Luc Nicolaï mu bëgg ko mbaa mu bañ koo bëgg mu def ko mbaa mu bañ koo def kii nga xamante ni moo di combat Ama Balde ak Modou xuloo dina am ci nii mbaa ci nële Babacar yamu ca moom mii di Xaadim Gajaga mu daal di tamit xam le ni euh, bu dee ni euh, Luc Nicolaï pareegul rek ñoom ñu daal di seet yeneen yoon yu ñu def ngir euh, mën a egg ci combat boobu Babacar. waaw muy wax joo xam ne daal wax ju leer naa ñu ki ko wax mhm. Mhm. bu ñu nee Xaadim Gajaga moom mooy président Rock mhm. bi Modou Lo nekk di fa yëngatoo. moom moo ko jiite. ah defe naa nag xëy na li tax mu xëy tey wax. parce que démb dañ fi gis que ni ñu ngi naan mois de décembre. Mhm. yaa ngi dégg pour combat bi te loolu lépp ah li ko waral mooy xëy na euh, maanaam ci ñoom li ñuy xalaat wala ñuy wala ñenn ñi di ko jàpp mooy xëy na mhm. promoteur bi dafa parewul pour tëgg combat bi mhm. xëy na moom nag moo tax mu génn nag en tant que kilifa Rock Énergie ba fa nga xam ne fa la muudu nekk xamal li daal ne ko mu bëgg wala mu bañ combat moom dana am. yaa ngi dégg bu fekkente ne moom mënu koo amal nu wutal yeneen yoon loolu nag lii ci mën a dégg mooy kon li ci boppam daal yaakaar naa ne mhm. ah dina dégg li ko gaañi di wax mhm. te itam dina si bàyyi xel waaye man tamit euh, li ñuy ñaan daal mooy mhm. moom lig mi nga xam ne moom moo sumb combat bi ba mu yegg fii mhm. yaa ngi dégg ba ay kii sorti jot ci am ak yoo mel ne ki noonu ñu ngi koy ñaanal yàlla mu mën ko tëgg parce que tamit ko Nicolaï yaakaar naa ne bariwul lu mu abandonné combat si si si si si si si si carrière am wala boog man bu amee mosuma koo gis te itam ñaanaluñ ko yàlla bés bu toll nii mu koy abandonné wala mu bañ ko tëgg ñu ngi ñaan yàlla daal Oulimata mm-hmm. yàlla na ko tëgg aussitôt tamit nañu waxtaan mm-hmm. muy la kaawu euh, kaawu lit Nicolay kaawu xaarim ga jega maanaam bu Modou Lo ak bu Ama Baldé mm-hmm. ñoom ñëpp ay partenaire lañu parce que ñoom ñooy weccoonte maanaam li kay fay mbër yi mbër yi bëree ça veut dire su ma la xelool lool promoteurs ñoom ñoo ko mbër yi ay partenaire lañu kon defe naa ne lu mën a xew rek nañu waxtaan mooy gën parce que des fois waxtaanu biir nekk dafay ëpp solo sax yenn yi ulimata nga di ko wax ci mbedd parce que pour man du ko jar c'est inutile mhm. day euh, firndeel rek euh, làmb ji fu mu toll ci ñoom en tout cas mhm. bu ñu fa jógee dañuy daal di euh, dem ci ki nga xamante ni mooy Ama ba tey ak Modou mhm. ñu ne daal moom la sunu làmb ne c'est non régularisé aucune date calée maanaam Babacar suñu ko comprendre maanaam daal fi mu ne nii am nañ ci ay inquiétude ay tuuti tiit jaaxle yaatu combat boobu. waaw loo si mën a dégg daal. jaaxle yooyu moom wax dëgg yàlla. ah fi mu nekk nii képp kuy dund làmb yaa ngi bëgg a xam Ama Modou kañ la. dat bi ndax régulariser nañ ko wala loolu. loolu nag su fekkente ne amul régulariser wuñu amuñu date ah. wax dëgg yàlla dina jaaxal ni bëgg a gis combat bi te combat bi amateur yee ko soxla wax naa ko fii démb combat bi ñépp a ko bëgg maanaam tey sénégalais yi ñoo bëgg a boobu combat dama naan la combat Ama Baldé Modou Lo demande sociale la yaa ngi dégg nit ñi ñoo ko doon laaj. Mm. mën naa tamit moo xew ci Balla Gaye di ak Boy Niang bi taxaw bari ki démb wante kon defe naa ne jaaxle yu ñu ci am rek li ma ñaan sànq laay ñaanal rek yal na yàlla def jaaxle yu yàlla xàjji ko. ba mm. promoteur bi am dat mën a régulariser combat ñu mën ko bëri que le meilleur gagne. amiin yàlla yóbbu ñu ci jàmm. Babacar ñu dem fekkee ji ko. teewee loolu ki nga xamante ni mooy euh, guy gi itam daal dinay wax ci suñu làmb tey jii ñu ne moom nag dafay euh, chauffer kii di euh, rëg-rëg mu ne je vais le battre en une minute buñ ko déggee daal Babacar maanaam mooy dinaa ko daan ci lu toll ci benn waxtu ci benn minute ci benn simili moom tamit nee na itam moom guy gi ne un coup de au coup de sifflet de l'arbitre je marcherai sur lui. maanaam daal euh, buy arbitre di siffler daal dina ko dina ko daal mu dox ci kaw waaw loolu de mbër yàgg na koo wax sa arbitre soufflé ma dox sa kaw mhm. une minute laa lay daal loolu moom waxi mbër ak mbër la wax jooju nag man baa ko du ma ci sukkandiku xam nga dox du ma ci sukkandiku mhm. parce que li tax mooy làmb du xeexu mbedd maanaam dafa am mhm. nuñ koy defee techniquement si dafa am ay plan de travail lépp dañ koy lijjanti ba teg ko ci aw yoon. Eh, adversaire bi nii nga war a bëree ak moom tey mm-hmm. bis bi nii la laaj. loolu nag combat psychologique dafa am. waaw waaw ay kàddu. voilà mooy li muy def nii. Mm-hmm. maanaam jéem a dox ci nu ay waa ji. Mm-hmm. damay dox sa kaw une minute laa lay daan. guy gi nag mbër la boo xam ne bu am sañ-sañ la mu seq ko xale bu am sañ-sañ muy rëgg. kon defe naa ñoom ñaar xaw ma dinañ daj ci une minute xaw ma duñ daj ci une minute waaye xam naa daje moom ko def moom. incha allah loolu moom maa la ko mën a yëgal. kii uh-huh. a ba dana jeex. dëgg la moom mm-hmm. tamit uh, daal di nañ wax ci moom ci sunu làmb moom daal ñu ne uh, il s'offre cinq affiches maanaam uh, juróomi combat yu ñu war a tëgg moom mi le Don King ñu ne nag il reprend le pouvoir dafa mel ni ne nii daal pouvoir bi mi ngi ci kaw mi ngi ci ay loxoom moom Gaston Mbengue. waaw parce que dañ ne ko naan sax macha allah wala ñu nekk kaar parce que li tax mooy. Mm-hmm. Ah, suñu papa la. Mm-hmm. ba pare itam comme li ma waxoon démb rek te daan ko wax bëri ki démb moom laay wax tey te incha allah rabbi suba loolu laay continuer di wax Gaston Mbengue royukaay la encore une tant que promoteur parce que dafa am loo xam nit su ci nekkee euh, ulimata di ko dund mm-hmm. nekk ci benn mbir di ki xeex ba tey mu yegg si fii mm-hmm. defe naa dafay yeyoo jaajëf Gaston tey combat bu mu tëgg rek dañ ko war a wax ne ko jërëjëf parce que li tax mooy heure bi waroon na fekk mu bàyyi su ko neexoon mais terewul bàyyi woon na dem ba benn moment ah mu dellu bi mu dikkaatee tamit wax dëgg yàlla tey bu reprendre pouvoir bi parce que loolu sa veut dire que mu lay wane ne liggéey rek moo wóor parce que combat yi mu tëgg tamit moom amu ci benn combat boo xam ne di ko xool ne du du yu mag rek la tëgg kon ñu ngi koy ñaanal yàlla affiche yooyu mu tëgg ba bër ki naa Boy Niang Balla Gaye ñëpp nañ mënta nekk dina nekk ak du nekk mu fexe ba nekkal ko kon koy ñaanal yàlla affiche yooyu yàlla na ko yeggale ak sagom ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax mais di nuyu promoteur yépp parce que itam daal nit ki maanaam olof ne loo fa xaaroon rek du la fa fekk dëgg la baax te ko fay xaar pour man dëgg la mm-hmm. euh, dañuy daal di dem ci ki nga xamante ni mooy euh, Gris Bordeaux moom mm-hmm. nag euh, ñu ne ndax dina mën a daan kii nga xam ne mooy Lac de Guiers ginnaaw ba mu daanee kii di Tafa Gueye Papa Sow ak Eumeu seen Babacar ndax Gris Bordeaux dina mën a daan Lac de looy tontu ci loolu Lac de yi xaw ma gi dina ko mën a daan xaw ma du ko mën a mm-hmm. mais li ma xam daal Lac ku jafee daan te loolu itam defe naa ñëpp ñi nga xam ne ay spécialiste su làmb lañu. wala ñuy ñuy suivre làmb xam lan mooy làmb. xam lan mooy mbër. xam nañ ne mbër mu jafee daan la. dëgg la loolu moom yàlla def na ko. ñi mu daan tamit. Mhm. ay mbër waara lañ ndax ku daan Tapha Gueye daan Papa Sow mhm. daan Eumeu Sène par décision arbitrale maanaam avertissement bari ci mhm. loolu lépp ndam la. kon ça veut dire mbër la boo xam ne mbër la. lu coow li bëri bëri itam mbër la. ndax giri na ko mën a arrêté nag ah loolu dañuy bàyyi ba arbitre xam naa nag su bëriwoon ak Gris Bordeaux xalaat naa di nga fa gis xeex dinga nga fa gis ëpp jël loolu moom xam naa xalaat naa ko parce que xam naa ñoom ñaar ku ci ni fugg bi amee ci yow maanaam ni ngay doxale ci làmb loolu yàlla dogal na xam naa ko si ñoom ñaar xalaat naa ni suñ bëree moom comme li gars yi naan mat mat si nii rek yooyu mm-hmm. foogu moom am fa moo xalaat naa dana saf te dana jeex <laughs> macha allah Babacar euh, dañuy daal di jeexale suñu làmb ci li nga xamante ni euh, mooy euh, écurie bu bees bi nga xamante ni juddu na fële ca. ca Medina. mën nañ wax mi ngi tudd euh, écurie écurie Fass Ndakaaru. Mhm. donc euh, kii di euh, Kati Diop di entraîneur ba waaye itam Abbas Ndoye doon. président wu écurie ba Babacar nga wax ñu ci tuuti. waa loolu daal li ñu ci xamle mooy que ni defe naa ay weer a ngi ñu dégg écurie boobu. Mhm. Fass Ndakaaru dañu bëgg a def benn fusion parce que écurie Ndakaaru. Mhm. écurie la woon. boo xam ne mu ngi doon dox am Amadou Kati Diop yoree ko nekkoon entraîneur bi Yékini nekk fa defe fa carrière ba bàyyi làmba ak i mbër ñoom Youssou Ndour mën nañ leen limb bëri na ay mbër yu fa jaar ñoom Mbagnick Ndiaye ñoom ñëpp nekkoon fa écurie Fass tamit dafe naa xam nga ko écurie bu Tafa Gueye Mbaye Gueye Gris Bordeaux ñoom Papa Sow ba tey ñoom Forza ak ay lagros ak ñeneen def ñoom nag ñoo dem ba benn moment ñu xool ne dañu bëgg a fusionner ñaari écurie yi def benn écurie yu ànd muy écurie Ndakaaru écurie Fass loolu moo waral li nga dégg nii tey nag loolu lañ doon mébét ba far yàlla def mu mu sotti. mu muy loo xam ne ah olof na na mbooloo mooy doole. l'essentiel que liñ ci jublu ñoom ba def ko yàlla nañ ko ci fekk. nañu ànd tamit rek te yàlla rek tax ànd te dëgg tax ànd te bëgg a liggéey. ànd te bëgg a satisfaire seen commune parce que muy Fass. Colobane Gueule Tapée Médina foofu benn zone bi la defe naa bu ñu dajaloo ñoom ñooy ñëpp Kati Diop moo ko doon tàggat après ci la Kati Diop jógee écurie euh, Fass dem sañ ci écurie Ndakaaru mook ña mu àndaloon ñoom Mbaye Cissé ñoom Père Youssou Dieng ak mag ñooñu mm-hmm. yaa ngi dégg tey su demaatee ba woo ñu na ñu war a boolaat ñu booloo na ko na xam-xamam moom Kati yi nga xam ne nii tey ay royukaay lañ mm-hmm. jeune la muy wax dëgg yàlla exemple la ñu ngi leen di ñaanal daal seen équipe boobu Babacar donc euh, liñ ciy séntu rek en tout cas yàlla na leen ko yàlla defal yàlla mm-hmm. may leen avancement mm-hmm. ndax loolu ëpp solo loolu ëpp njëriñ comme ni nga ko waxee léegi mbooloo daal mooy doole loolu mooy euh, li jeexaloon tey ji euh, suñu quotidien wu suñu lamb dañuy daal di dikk ci bi nga xam ne mooy le record le record nag tey Babacar dafa xëy wax ci euh, Boy Niang ak Ama Baldé donc euh, ñoom ñaar nag ñu ne considéré leen comme ñaari locomotive locomotive maanaam ñaari machines yi nga xam ne ñooy dawal li nga xamante ni mooy arène nationale bi Babacar ñu wax ci tuuti ci loolu. waaw loolu daal su ci record ñëwee li ñu ciy jàngate mooy ça veut dire ay xale lañ yoo xam ne. Mhm. ah bi ñu ñëwee si làmb yàggul seen ambition ak seen ñuy def. Mhm. tax na tey ñu yegsi fii ñu yegsi parce que tamit am nañ ay seeni morom yi ñu duggandool ci làmb mhm. am na ñu ci fekk ñooña tey mënuñoo bëreeg Balla Gaye mënuñoo bëreeg Modou Lo ñoom ñaar nag bu ñu demee ba tey mën a bëreeg Balla Gaye mën a bëreeg Modou Lo wala Tapha Tine ça veut liggéey nañu wax mhm. dëgg yàlla parce que Boy Niang mii bi ma koy njëkk bi ma koy ñu bëri fi ñu ko découvrir mooy mbapat bu Ndeye Ndiaye Tyson tëggoon ar Iba Mar Diop mhm. tuddewoon ko Mohamed Ndao Tyson keroog mu final faak booy booy bi ñu wax Farba yaakaar naa. Mm-hmm. nekk xale bu ndaw mën a bëre loolu macha allah. Ama Balde ku ma mag Ousou Ndiaye Iba Mar la ñu ñu njëkk gisee. Mm-hmm. mu indi woon fa mbooloo mu doy waar. defe naa boobu ak yàggagul. Mm-hmm. motagul vingt ans. motagul sax quinze ans yaakaar naa ne kon tey bu ñu yegsee ci niveau bi ñu yegsee di jongante ci niveau bii. ah ça veut moo lay wan ne euh, la Youssou Ndour waxoon rek. Oulimata Dakar sax boo koy jaay faw nga am ful ah liggéey nañ nag. ba am ay combat yu mag a mag a mag ah combat yi fu lox fa fu wane di mu jékki bëtam mhm. ndax Boy Niang Balla Gaye li ma lax rek lamb du ko gën a rëy Ama Baldé Modou Lô mhm. lamb fa la yem kon ça veut dire ñu yónni yàgg. voilà mu doon nag ay ndaw yu am jom lool. Babacar ñëpp di leen ko témoigner franchement ñu leen di ñaanal rek ñoom mën a àggale ñoom tam seen carrière ci jàmm ak salaam. Mhm. Euh, bu ñu fa jógee dañuy daal di euh, dem tëjee sax li nga xamante ni moo di lutte simple ci record mhm. donc euh, li nga xam ni mooy le fii nga xamante ni mooy dëkku. Foundiougne ñu tëgg fa nag voilà plus précisément ca Gagge Chérif ñu tëgg fa le 15 combat lutte simple sax laay mën a wax euh, te ñu teg nag ñaari oto ñaari daamar la ñuy wax ci olof <laughs> Babacar lañ fa teg Babacar boo moytuwul gomis nee na day defi làmb ndax làmb ji daa ah, dëgg yàlla Olimata ku ko gañ sax bëgg naa ko est-ce que du ma dem est ah. ma de yow kay maa lay demal kon da ngay ma la <laughs> waaye loo ci mën a dégg loolu lépp mën na lay wane rek mm-hmm. mm-hmm. oto tamit si benn journée mm-hmm. ah loolu ñu ngi ñaan yàlla rek ñu yegg si ak jàmm xam naa après koor gi lay doon insha allah rabbi ah, moo lay wane làmb ji daal masha allah mu ngi dox daal la alors euh, voilà moo doonoon nag euh, lii di tëj tey ji suñu JDA mais balaa ñuy pare dañuy euh, daal di dem ci ki nga xamante ni moo di euh, Bécaye mbay mu mel ni Babacar démb dalaloon nañ ko fii ci Equivox TV nga waxtaan ak moom ñu waxtaan ak moom làmb waa Père Bécaye de mooy làmb soo bëggee dëgg dëgg mhm. parce que ndax mooy lu mu def la lu mu wane la si exemple mhm. mu doon si tamit maanaam am yar bu mu am yar waaye tamit dal gu mu dal et puis yu mu am et puis am ak ñëpp jàmm loolu moom la ko Sénégal yëpp xameel mu di ko doxee ba tax na keroog mu dal ñu fa nga xam ne moom moo doon ca Bantamba TV di kër gu bees goo xam ne moo ko sanc mhm. ñu ko ci ñaan réussite ak ndam mhm. waxtaan nañ làmb ah laaj nañ ko tamit mu wax lu bare bare bare ñëw na ci combat Franc ak Tyson mhm. na di moins la dànkaa parce que daa jàpp ne Franc moo gën a nekk fi mu nekk nii ci compétition parce que mu ngi bëri tout le temps effectivement fan yi passe defe naa ne ñetti tournoi wala quatre yi mu participé yëpp dafa gagné tournoi yu ber perte benn bi kon mu ngi compétir xëy na moo tax mu waxee noonu Tyson 2 tamit mbëru simple la mhm. waaw dafa bëri li simple lu baree baree bëri xëy na gëj nga koo def waaye terewul mbëru simple la mhm. Franc moo ci nekk lit simple bi tamit jàpp na ne moom père Bécaye lit simple ak lit affaire farab amateurs yi du ñu benn parce que daa jàpp ne ñee def lit simple amateurs yi fay ñëw di ay kilifa ne na ñooñu ay liggéeykat la ñu maanaam ñoom dañuy liggéey bu dimanche jotee Oulimata ñu am seen passion seen culture dëkk dem fay seen billet seetaan ko doo fa dégg xeex doo fa dégg saaga doo fa dégg wax bu ñaaw mhm. kon nag lutte simple bi tamit <coughs> lutte avec frappe bi rawatina supporters yi lutte avec mhm. a am ba jeex doo fa gis ku ñu sànni xeer waxatuma nag dem ay sax war war nañ ci mën a roy parce que lépp làmb la xëy na li leen wutale mhm. mooy lee benn mise bu ñuy teg la 60 litres bindu wala 100 litres ñu bëree ko benn jour mu jeex. Mm-hmm. mais li ay combat nommé la mm-hmm. mais terewul sa mbër même bu ñu ko namee war nga ko mën a yéene mu bëre bëre waat defe naa boo àndeek moom di yàq nag kon yéeneetoo ko loolu dëgg la Babacar mu doon loo xam ne nag euh, voilà képp kuy amateur lamb képp kuy supporter mhm. war na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax tey jii lu ñu mënti yàq suñu mhm. alal lañ yàq bu ëllëgee dinañ ko soxla mu doon euh, jafe-jafe pour ñu jotaat ci mhm. donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di ko gërëm di ko sant moom yi nga xamante ni mooy suñu père Bekaay Mbaye di la gërëm yow tamit Babacar vraiment ci taxawaay bi fii ci Equivox TV ak fépp ci arène bi <laughs> sax mën naa <laughs> li nga xamante ni voilà mooy ndar képp tey jii suñu euh, journal de l'arène mais balaa ñuy euh, tëj nag tey Babacar comme d'habitude yow yaay nekk di gërëmaate tey danga may may ma gërëm. am nga ci droit gërëmal moom damay gërëm sama a gërëm sax nag sama doomu ndey <laughs> ah. sama doomu bu baax a baax a baax jong buuba ak baaba comme ni ma ko koy waxee euh, souvent di ko di ko tagg loolu rek laa xam nag ci ci takk bi mais maa ngi koy gërëm di ko sant ndax doon xarit joo xamante ni xarit bu exemplaire bi nekkee xale ba tey ñooy ànd ñoo màggandoo ñoo raamandoo tout et tout donc mosul changé si sama kanam tey jii nag euh, voilà dama décidé gërëm ko sant ko ndax ànd bu rafet bi également par euh, parfum bépp parfum bu ma xeeñ si biir Equivox TV. lépp lu leen xeeñ rek lu neex voilà xamal ni moo fa jaar voilà. <laughs> donc maman Diong maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm di ñaan yàlla rek euh, lépp loo bëgg sa xol également yàlla defal la ko defal ko voilà say waajur may la nga nga taxawu leen incha allah rabbi kon maman jong daal <laughs> sa diggante ku li mata yal na ko yàlla sàmm li ma la si li ma leen siy doole rek lenn la mhm. xam nga xaritoo moom mhm. dafa jafe parce que xarit mooy ñaari mm, lu boo lu booloo ñu xar ko ci digg bi bi mhm. nekk nii bi nekk nii loolu mooy xarit kon yàlla leen ko yàlla sàmmal li koy gën a sàmm nag bokk na ci ngeen lal say dëgg ci diggante bi maanaam di waxante dëgg bu jotee. dëgg la te loolu du neex. Mhm. bu ngeen di xuloo sax ngeen waxante ko. Mhm. mais bu ko nekk demee boo dalee boo des di nga xam ne kat. Mhm. maman mi dëgg la ma wax wala ulimati mi dëgg la ma wax. loolu soo amee rek incha allah rabi ànd bi dina yàgg. bañ a déglu tamit ñi mel ni Babacar. <laughs> ulimata nee na parce que diggante yu bëri yàqu loolu ko yàq. Oulimata nee na nangam. Mm-hmm. wala suy sa xam nga. dëgg la ngeen moytu ko. heureusement yalla may nañu ba meluñu noonu. te yàlla na continuer yàlla na continuer yàlla na leen ko yàlla sàmmal. amiin yaa rabbi di gërëm ñëpp di gërëm képp koo xam ne daal yaa ngi sifir. Mm-hmm. man tamit di gërëm suma xarit. Mm-hmm. ah ku ñëw Abdou Aziz Ndiaye di suma xarit ma koy nuyu bu baax a baax a baax ñu boo bokk dëkk ci ak yaay muy suma xaritu benn bakkan moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak Mbaye Ngom mais Aziz moom mention spéciale moo soxnaam ay soxnaam sax laay wax muy mbenn jonn ak soxna Soumaré moom itam depuis xale mhm. lu ne defandoon nañ ko man moom Mbaye Ngom ak Ablaye Seye ah ñoom ñoom ñëpp ñoom Daouda Mbaye sama ami d'enfance yëpp du ma leen fàtte parce que tamit ku dul kuy kuy fàtte démb rek olof ne na gore kon ñoom maa ngi nuyu nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre Equivox TV mais sa verre <laughs> wala ah man yow yaa ma toppandoo Babacar. ku la toppandoo bàyyi di taxaw sa bal bu may xëy si nga may séen. di xool li ma sol man Dakar laa dëkk nga dëkk Medina. dëkkoo Dakar am nga dégg naa am nga beneen beneen <laughs> appartement fii wetu Equivox TV fa ngay taxaw di ma seen moo sol nga ko nag <laughs> <laughs> maa lay gërëm di la jaajëfal di jaajëfal Gomis suñu caméraman bu baax bi euh, di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen JDA jërë ngeen jëf. moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xee maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma mës a bëre yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk yi boobu lay gëj a maa ko daa ko bëre fuuf daa ko ma ko bëre ndànk sax. danaa ko damm ba toog ci kaw. bu fekkee dafa am fu mu lu ma bëgg a wane du ma am Lamine moom moo may téye. Vox la voix de l'arène le G5 un gala cinq ci benn takkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw ko ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30. 78 188 30